sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu xaq di leen baal di ñaanal Cheikh Seydal Maxtaar sunu boroom yàggal ko fi dolli ko kàttan ba mottali mbooleem ay naalam ak ay yéeneem ci liggéeyal xaadimu rasuul di ko ñaanal mbooleem kilifa diine yëpp ak jullit yi ak taalibe yi di nuyu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoom la fekk ci jataay bi di ko doore ci sëñ Ahmadou Mbakke mi nga xam ne sunu sëriñ la sunu wóllare la moo ngi jàllale ci moom nuyoo bu sell di nuyu sëñ Ahmadou Ndiaye mi nu dendal ñoo ngi koy siyaar baax ak Serigne Mbaye Longoor jànkatu xasaayit yépp ñoo ngi leen di nuyu di ko jaaree ci sëñ lay Seck di ndokkeel bu baax a baax sëriñ Bolle Mbaye ci bis bii di ko ci jaajëfal di sant yàlla it <clears throat> bi mu nu mayee tawféexe nu ñëw fekkee si bis bu mag bii ndax dafay mel ni taalibe yu bari sëñ Bolle lebal na leen ñëw teew ci seen bis kon man mi bokk naa ci ñaame woon boru war a ñëw ci bisam ndax bis bi may taxawal daf ciy ñëw kon ma jéem a fay si bar boobu sëñ Mame Mbaye Guèye noo leen di nuyu bu baax kilifa yi fi ñu leen fekk rek liñ doon wax jataay bii mooy jataayu lépp ndax xasaa yi ji mooy lépp Cheikhul Xadim dafa wax ne kitaabati dikrun wa shukurun wa sadaat allahu arshada qilaami wal midaat kon boo ko dee jàng yaa ngi tudd yàlla boo ko dee jàng yaa ngi sant yàlla te sant yàlla gi ci gën a kawe mooy sant sëñ Tuuba euh, dafay mel ni <clears throat> ñaar yii bu ñu doon laaj ku dàq sant yàlla ci kaw suuf mooy ki dàq sant sëñ Tuuba bu ñu doon laaj it wirdi wi gën ci wirdi yi suñu suñ boroom wirdu bëgg sëñ Tuuba moo ci gën loolu nag ñaar ñaar ñaar ñi ko wax ñëpp yaakaar naa ñu bari nungul nañu leen ci yoon wi muy sëñ Modou Diaw Paxa sultaanul aarifin wa maxrafatul xaarifin ak Cheikh Ibrahima Diop almachar yi Cheikh Ibrahima Diop ba muy wax sant sëñ Tuubaa dane fa shukruhu wa shukru la xaalixina wa ashkaru naasi man li shay nee na saa yooyu sant sëñ Tuubaa rek yaa ngi sant yàlla te ñi dàq sant yàlla ci kaw suuf mooy ñi dàq sant sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima sëñ Modou Diaw Paxa it dafa waxoon ne mahabatu abdul xadimi wirdi wa huwa lada sal arsh xayru wirdi nee bëgg sëñ Tuubaa mooy di wi gën te bañ demee fa suñ borom it dafa gën mooy bëgg sëñ Tuubaa mu tegaat ci ne mahabatu abdul xadimi tonti barakatan min barakatil maati boo bëggee am bar barke boo dul tàggoo it nee na na nga bëgg sëñ Tuubaa waaye mahabatu abdul xadimi tag fi acharra waan jalbil xuyuri tag fii day fekk ay lor ba noppi rek day ñoddee xéewal te <clears throat> kooku ko wax xam nga wàllu yàlla yépp yaakaar naa ñiy gëstu xam nañu ne mulku la ñuy yem mulku malakoot awliya ullah yi duñ ci yàgg li tax sëñ Tuubaa wuteeg ñëpp mooy sëñ Tuubaa genn guddi war na ci sëñ Modou Jaw paxa mulkoog malakoot xëy may ko ko teg ci kon sëñ bi moom dadul ñii du ñee di ñun koy dandaleel ba ca toppit mooy koo seen muy dox sëñ bi neex la bu la kenn convaincre jàppal na yow neex nga yàlla xam nga jàpp na yow ne yàlla neex na la mu wóor na ne yàlla neex la la ko dàq te Sëñ Tuubaa nee na ku ma neex neex nga yàlla lu ma neex neex na yàlla chitu ladi chaa al ilah wal ilah yachaau ma chitu bila durrin wala loolu nag mooy mooy te lu waaye di wax nag waxi sëñ bi ko gën a wér te moo wax loolu boppam moo wax ne chitu ladi chaa al neex naa ki neex yàlla walaahu yachaau ma chitu te it dana neex yàlla ku ma neex bila durrin walla kon saa yoo bëggee sëñ bi rek xamal na yow yaay ki neex yàlla boo ko defee nag ki yor li gën day xam ne moo yor li gën mu bañ koo sàgganee te xasiida man de alxuraan mii nuy jàng xam naa jàngate alxuraan yi nag nañ ma nañ ma baal ci li may wax mooy man bu ma gisuloon sëñ Tuubaa bind alxuraan man du ma jàng alxuraan maanaam bu ma gisuloon sëñ bi bind ko nga xam ne dafa saxal ne alxuraan wér na bind ko daa ko dul jàng ndax riwaay yi daa bari ixtilaaf yi bari moom laa def it muy sama mustalahul xadis moom sëñ bi xadis bu mu saxal rek man booba laa wéral loolu it nit ki nag sama sama pas-pas bu bopp nag ci laa waxee waxuma lu concerné ñëpp lu concerné Gana Messere la mooy bu ma gisuloon sëñ Tuubaa bind alxuraan du ma ko jàng waaye gis gi ma gis sëñ bi bind ko nag ba noppi na maa moom moo tax may jàng alxuraan waaye xasiida ki koy jàng dafa war a xam ne sëñ caay saytaane saytaane dafa daw sori ko hërëba min sha'riya iblisul marid wa bi xas sa qasaidi yahtadil murid gis nga murid dara mënu koo jubal lu du xasida loo mën a nekk te nekkoo ci xasida loolu tey mel ni xala te maa ngi leen di laaj loo xam ne nañ ko wax te yàlla rek tax gis nga bëgg sañ Tuubaa ak wér boo bëggee doo mooy yàlla boo bëggee doo mooy yàlla da ngay bëgg sëñ Tuubaa bëgg sëñ Tuubaa ñett a koy def aw làmmiñ ab xol ay cër làmmiñ yu bëgg sëñ Tuubaa du safaan lu baax rek lay wax xol bu bëgg sëñ Tuubaa feebar yi yi nekk ci xol day tàggoog moom muy kiñaan ak rëy ak bëgg adduna ak tayel yooyu xol da koy dindi bëgg sëñ Tuubaa bëgg sëñ Tuubaa day dindi ci aw ab cër topp mooy yàlla fi ne saa yoo bëggee sëñ Tuubaa biir bëgg gi nga bëgg sëñ Tuubaa moo lay wommat ci ngay nungoo topp yàlla loolu la bëgg sëñ Tuubaa di def moo tax euh, boo ko bëggee da ko liggéeyal boo ko bëggee da nga ko jox nag day loo xam ne euh, sëñ bee ko fàggu rek mu bokk ci ay kawtéefam ndax xasaidi min mujizatil muntaqa sëñ bee jëkk doon kawtéef sëñ Tuubaa dafa wax ne abo xayta ni mujizatan lil muntaqa wa man lam yuwaafiq ni laaqa mattaqa yàlla ma fi desal may kawteef ci rasuul lay ku dëppawul ak man nag loo ragal rek ngay dajal maanaam maanaam code bi jëm ci yàlla mu ngi ci loxoy Sëñ Tuubaa xam nga dañuy wax xaatimul awliya ak xaatimul anbiya desee dégg na xaatimul awliya xaatimul awliya benn mantalo boo xam ne ko mas a sol rek ëpp na la kenn na ko mas a sol ci moom muy Sëriñ Tuubaa te dañuy wax ne xaatimul anbiya fi ñu koy nomee fañ koy nomee la ñuy nomee xaatimul awliya fi ne machine bi yaa ngi am son boo xam ne ay at la léeg-léeg ñu indi la lool ci sa ci sa téléphone lu doonoon ay at nga garde ko ci mu man fee nekk ba ay at xatimul awliya noonu lañ koy def li yonent bi indi woon muy risaala bi doon ko jàngale bu fi bàyyi ko ginnaawam ay ati mu tàmbali raaf ku bëgg a gis original ba ci xatimul awliya ngay del te sëñ Tuubaa fa huwa imaamul awliya wa huwa raisul asfiya wa waarisun lil atqiya wal waarisun lil anbiya wal atqiya al xudama maanaam mboolem ni rasulullah jiitoo kuy ab yonent la sëñ Tuubaa jiitoo kuy wëliw yàlla donn nag yonent yëpp sëñ Tuubaa donnul Muusa bàyyi Xiisa xam nga sëñ Tuubaa daa donn Muusa donn Xiisa téeméeri junne ñaar fukki junne ñeenti junne yonent yooyu yëpp waarisul lil anbiya mbub mun mas a am sëñ Tuubaa ko sol yemu ci sax wax na lu gën a yéeme kataba allahu tabaraka wa taala ana katiba haasiru sayyarahu la fawqa al anbiya wal mursalin damal jàng atahadus bi shukri wa niam wala nga jàng kataballahu tabaraka wa taala ana kaadi bi hasiru istaslama ilayhi jamihu awliya awairuhu ba awaxiruhum sëñ Tuubaa nee na wala yu fi ma sa jëkk jiituma ba jàll yàlla jox na la ndigal nga ñëw jébbalu may sa sëriñ wala ñëw sama ginnaaw jox na la ndigal may sa sëriñ nee na yëmuma ca moom yàlla dana ma bindeef yépp maa leen moom may naa leen ñuy say jàpp kataballahu tabaraka wa taala ana kaati bi wahaballahu tabaraka wa taala li kaati bi hasiruhu qawli jami al alamin abidan lahu mamlukiina wallahu ala ma naqul wahi wakil kooku li gën a yéeme ci àdduna mooy dañuy wax ne dun xaafu Moussa Moussa yat ba mu yoroon mooy jësi ji rasul la yoroon moo tax waykat ba waxoon ne dun xaafu Moussa mooy euh, dabbuusu muusa mooy dun xaafi ay dara tey dun xaafi ay dara mooy junjub Serigne Touba maanaam jësi ja Moussa ja fir ja Isa yat ba mu yoroon mooy jësi ji rasul la yoroon loola nag mooy junjub Cheikh Ahmadou Bamba moo tax Serigne Touba wax ne ku dul yàlla tiim naa la féete la kaw ku dul man it yaa ngi sama ron maa la féete kaw am benn bindikat bu ne ko loolu àdduna du fi mën a leere ndax embouteillage bu adduna oto bu màggat dana fi daw bu bon taxaw fa bu pënee ic am bu amul radiateur di daw mooy circulation sëriñ si day xatandoo waaye yowmal xiyaam xat yi mu ko xat ala sax san siwaa kumu wa a xadan sa ya'lamuhul baraaya yowmal xiyaamatul akbar ku dul rasulullah yaa ngi ci ron ndànkul sëriñ Tuubaa kon ku am lu gën noppi gën da ngay xam la nga am lu mu door mooy nañ ko jàpp sëñ Fallou dafa waxoon ne sëñ Touba bu ñu koy jàpp dañ naan ko nikk na ko nankutum na ko katiw na ko tarawliis noonu la ñuy def sëñ Touba sëñ Touba du lu ñuy cofantu ak a coosantu nikk nankum katiw rek tarawliis ku ko def rek am jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullah yo